Babacar Babacar jëlal yàlla promoteur bu bees moom moo ñëw taxawal ko ñu naan ko Elimane loo yore Ndiambour production ah di gan ñu koy wax ahlan wa sahlan na dal ak jàmm ba li tax mu dugg ci làmb yàlla bu mu ko réccu yàlla na fi des parce que nag promoteurs yi lu ñu gën a yokku rek day gën a baax si làmb ji Elimane Lo moom nag bu ñëwee kon waa làmb tey amaat nañ geneen gan gu bees gu ñëwati ngir yàlla ak yonent bi nañ ko jalal te déem koo wan yoon wi teg ko ci aw yoon te moytul ko pakk-pakk yi tax maanaam mu mën a daw génnaat loolu du wóor ñu ci félicité ku mel ni wulli moom itam mu ngi koy accompagner bu baax a baax a baax a baax wulli borom reefan wulli doomu dayu jib caw ah le coordonnateur départemental da Benno Bokk Yaakaar fële ca Bambey wulli maa ngi koy bëggee bu baax a baax mais combat bi taxaw dafa doy ndax yaakaar naa ne bu ñu nekk Quench Lamine ne la ki nga xam ne ni moom mooy Lagros pël bu rafet ngente eh, ma xool kër Lagros laa ko xamee woon a ah, Lamine du noonu la demee waaw kon defe naa fekkee dëgg day tungam see dem tey mu ngi nii toog Quench mii itam yaakaar naa ne mu ngi nii daal géew bi daal xam naa na mën a lii léegi na xaw ma ci ku may njëkkee yéen ñaar ka kan laay njëkkee non man maa koy ay alam lebu ngeen yéen ñaar ñëpp de parce que Ndakaaru sama maam moom moom Ndakaaru maa koy dalal moom ngay jox ba pare wax ah, ah. ak cey loolu kenn du ko lijjanti euh, champion maa ngi lay bëggee. Babacar maa ngi lay fay. ñoo ngi sant yàlla julli jant bi. Mhm. di ñaanal suñu waajur yi bu baax. di ñaan yàlla tuur jàmm Sénégal. amiin di nuyu waa bu baax. Mhm. waaw. Mhm. di nuyu waa NGB kon sa waay ma bàyyi la nga nuyoo comme nuyoo na. waaw salaamaaleykum adduna. salaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyu gaayab di nuyu ñu fi fekk ñëpp sur internet yëpp. di nuyu Sénégal gi yëpp di ñaan yàlla. Mm-hmm. yàlla def si jàmm mm-hmm. gàmb gi ñu jëm mm. yàlla def si jàmm ba tali bi ñu dem si jàmm ñëw si jàmm di di ko ñaanal suma adversaire wér di ko ñaanal suma bopp mm-hmm. di nuyu fukki penceex ñaar yi di nuyu suma yaay di nuyu suma papa di nuyu suma barñi mm. di wax guddi guddi bar barñi guddi guddi barñi man du ma lëndamut doo lëndamtu du ma lëndamu timis li mu lëndamu fajar laa lu muy gën a yàgg may gën a leer waaw fajar de lu mu gën a yàgg mu gën a leer waa noonu la demee kon sa waay mii da ngaa fas yéene leer naññ ci koom. man damaa mos a leer damay ñëw rek di leer di dem. te du ci man dara. mënu si dara. moom Lac Rose mii. mënu si dara te ñaanu ma nga dara te lu mu ma jox ma jël. yow mos ngaa dugg Fass. waaw mos naa dugg Fass. loo fa def. Fass dugg naa fa ñaari yoon. kan ak kan nga fa daan. non duma la wax kan ak kan la mu fa daan. nañu ko Tafa Gueye de bëri ngeen defe naa. Tafa Gueye combat boobu sax dama bëgg ñu supprimer na keneen de ak kanam la combat boobu bëgg ñu koy wax. ñaar la wax de. Ah. ana Père Max mu ngi fi père ñaar nga ne ñaar la wax de nee na ñaar la dugg faas de. jaraaf ndooy bi ma daan faas ne. da ngay bàyyi may bàyyi ba Ibra Mbay lim nee naa ko bul lim. Hmm. jaraaf waaw jaraaf wax nga dëgg jaraaf. jaraaf mu nga bool mbooloo léegi. waaw noonu la wax nga dëgg maa xam jaraaf lagros mi xam na jaraaf. waaw noonu la kii yab na kii daa mel ni min na kër ga de euh, sa waay dégg nga lim wax de ñaanal na la wér ñaanal na ko ñëpp waaye nag nee na moom lëndëmuk fajar la. lu muy gën a dem muy gën a leer. waaw loolu moom moom la rek loolu moom la rek bu ko neexee toog fa ba naaj bi fekk ko fa. naaj wenn bi waaw mais bàyyi naa dugg faas moom comme ñaar la fa dugg. waaw bàyyi na fa dugg. yaa lii. waaw ko fay dugg. loolu rek daal laal la mën a wax mooy bàyyi na dugg faas moom. corriger xeex wala jàpp bëree daan. waaw làmb la làmb moom lépp la baaxoo lépp boo ñëwee si làmb ji lu làmb ji laaj rek nga def ko. Hmm. waaw yow lamsaar mas nga faa dugg. lamsaar non hmm. Ah, kon moom moo miin sa kër waaye yow miinoo këram. <laughs> waaw mën naa nekk. ah boo nee duggoo fa te moom mu dugg sa kër ñaari yoon am fa ñaari ndam. waaw moo tax bàyyi la fa dugg. da ko koy tere par force. bàyyi na fa dugg daal laa wax waxuma ay tere ak lii bàyyi na fa dugg. bu yàggul sark la fi mujj a gañe fii ci arène bi de. muy lagro euh, kële euh, double moteur. waaw double moteur moom champion la. waaw champion la ñëw na def na dafa def yëfu xale rek. bes boobu. waaw dafa def yëfu xale mu ëpp ko expérience rek jaay ko ko noonu xam nga xaw ko nax yooyu mais noonu la làmb mooy doxee noonu. Hmm. ñu ngi ñaanal double moteur li nekk si kanamam yëpp nekk lu neex waaw. mais adversaire bu mel ni Quench nga xam ko ñëpp xam ko maanaam boo xoolee ne nañ benn defet la ci làmb te ko ko daanoon yaakaar naa benn dëkkandoom la bu nekk bari ñi à part boobu ay mbër yu mag rek lay daan boobu ba tey mu mel ni sax gars yi ne nañ yoonam dafay xaw a yàgg tey nga ñëw jël ko yow nga toog ay at bëriwuloo depuis 2018 su ma juumul ca Moussa Ndoye te bi ngay mujj a bëre defe naa ne ci defet nga jóge woon ne ci ay série de defet tey nga mhm. ñëw jël koo xam ne lancé bi mu nekk doy na waar mhm. est-ce que jëloo ay risque nii nii ak ak mi man làmb mënu ma si jël risque làmb mënu ma si jël risque mais si côté boobu nga wax moom champion la moo tax moom ñun ñuy bëreek moom mhm. Quench champion loolu moom ñëpp xam nañ ko si am na ndaanan la champion la dañuy ñaan yàlla rek mu yóbbu ñu ci bis bi ak jàmm suñu borom suturaal ñu ñu dem ci kàttan bëre euh, kii Quench qualité bëreem. champion la xam nga champion la moom tënk na lépp mooy ndaanaan la champion la day bëre day xeex mais yàlla nañu yàlla suturaal ànd ak ñun jour ba. mais yow la nga daan wax yaa nga ca ba tey daan naa la dégg nga naan sa tàkk sa koñ sa gañ. saa boo tojee neen dem du ma si jóg. moom noonu nga koy du ma si jóg loolu mi ngi suñu kanam des na yeneen affaire yi xamaguñ fan lay dem xamaguñ kañ la ñu bëgg xam nga da di boo boo nduggee marché ñëw teg waaw mais boo rosee rusi bi daa war a xeeñ yow a a dégg yoon xanaa <laughs> ah, waay mi ne na koñ ba du ci wax tey de te loolu ay waxam la woon c'est que xamal lag bi xorom si moo dañ ko waa ku wen si ngi wax li mu bëgg wax moom lag bi moom xorom si dañ ko waa xorom de bu dañee moom moom dama kaa mos a bu muy bëree. Ah. sa Lac Rose bi daan dugg di tuus di lox. waaw comprendre nga. waaw may gis si moom li ne si man ma ngay gis si moom. comprendre nga. Uh-huh. ma tuddee woon nga ak benn nag. moom xam na li may wax. nag boo ko woon. nag bi ma njëkk jël si làmb moom laa ko tuddee woon. Lac Rose waaw. Oh. comprendre nga. waaw ni ma doon naxee nag bi ba di ko tëral noonu laa koy naxee ba tëral incha allahu rabbi <laughs> uh-huh. non li may wax kañ du dañ. xanaa kon lii moo tax nangu da wax ci combat bi. mu nangu jee sol <laughs> moom ne woon na sax dina ma tuddee ab pigeon dama koy laaj pigeon bi moo waroon tuddee fu mu toll. <laughs> Ah, loolu wax na la ko doon waxal tudde na la nagam ba mu ba mu njëkk a gañe mu yow la ko tudde ndax faawoon la nee nag nam daan naxe nag ba ba daan la. bu yaa koy dégg. waaw nag bi nag la doon nax de. <laughs> waaw loolu am na waaw. waaw nag la doon nax. waaw waaw nag nag la mën a nax. mais yow. non nag la mën a nax moom nag bi la doon nax. yow nag. non mais nag la mën a nax kañ man man man mun man Coense du ma nax Coense kañ bu nax dee am man maa koy nax. waaw mais moom moom moom mënu maa nax moom. mënu ko de. déedéet. amul capacité nax la. mënu ma nax daal nag daal la doon nax. waaw mais li mu a lag bi amatul xorom nag. waaw loolu moom la bu ko bu ko bu lu xam moom lu lu neex waaye wax loolu moom bu ko neexee mu wax ko mais man daal wax naa li may wax ñoo ngi ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci bés jàmm suñu borom suturaal ñu may ñu dam waaw. Hmm. ci père Max day moom bëgg mais dama koy sant di nga gërëm. waaw loo koy sant parce dugg na kër yëpp. waaw su ma avance. Hmm, hmm, dugg na kër yëpp génne. waaw kon bu ko sañee jël. waaw dama koy sant di ko wax aw Lac Rose na ma la gërëm na ma la. ndeysaan waaw. mais le jour ji. waaw dana maa ngi ëpp double moteur expérience. waaw loolu moom jaay expérience dama koy jaay doole daan. déggoo ma ne ah, dama koy jaay doole daan ka. dégguloo ma de ko ba mu bàyyi. ma teg ka ma teg gars yi. moytul jour ba rek CNG jaar fa bàyyi dini dóor. dini dóor si làmb ji waaw. man bëreewu ma de. man bëreewu ma. man sóoroo. man lagros bi ma sóoroo. Ah. ma de. ne bëreewu ma looy def. na moytu daal rek CNG jaar fa dindi dóor ñu def làmb ji simple jour ba. luy luy loolu. loolu daal laay loolu dama dama dama waaw dama jox waa jox ko waa jox moom Lac bëgg nga leeral loolu nga ne bëri jox ko jox ko rek man wax naa ba pare Babacar. boo mënee bëri. uy ma fii Bab. waaw waaw maa nga ca loola de waaw. Bab bëgg nga déglu. maa ngi lay dégg maa ngi lay ma ne boo boo mënee bëri. waaw ab xeex ab coono la. waaw te man lébu piir laa. soo mënee bëre. xeex coono la te man lébu piir laa waxuma la lébu sans kooj de. kon Lac Rose ni mu doonee lébu te mënul napp parce que kii lébu wuñu ñu na nii rek teg ko mënoo napp mënoo dem géej yow bu jën yi jëmee nii xamoo nuñ koy jàppee. yow maa ngi yow yem fi mu ne perte nga repère si jën yi bu yàgg. man gaal laa yor. gëj ngaa gaal gaal ma yóbbu ko fu mu bëgg. te kii bu ñu yeggoon ci gaal moom mooy as maa ngay jox muy as te kii mënul wax ba ay bouchon du maap moom li ma koy wax xamu ko parce que du ab lébu mënul wax ba ay bouchon du maap deuxième bi. waaw mooy que man soxla ma lagros bu sedda bi soxla woo lagros. lagros bu sedda bi lagros bi doon agressé gars moom nga bëgg a gis. di di la naan dama lay nuyu force. waaw boobu lagros saa su mais du bu sedda bi. yow boobu si biir géew nga koy gisee incha allah. si biir géew bi ni nga ko gis. incha allahu rabbi waaw. seddaay bi da lay bañ moom ñun day liw bi du ñu arrangé danoo bëgg lu tàng. Elimane a ngi nii moom nag moom moo tëgg combat bi ah Elimane Lo Elimane maa lay bëggee. maa ngi lay bëggee ça nga Elimane ahlan wa sahlan dalal ak jàmm génn nga fu ne fu nooy nepp de fu neex amateur yi. waaw waaw fu nooy nepp fu neex amateur yi. génn waaw parce que dafa am loo xam ne Sénégal la ko soxla. Mhm. ñaar ñii seen tàkkusaan Sénégal la ko soxla. moo tax ñu mhm. taxaw ci ba ba ba lépp taxaw incha allah. Mhm. loolu moo tax ñu taxawal. combat bi su ma la doon laaj tey datu combat bi ban moment nga ko bëgg a tëb ak yan jamono. mois de mars lañ ko bëgg a tëb bi incha allah. avant koor gi incha allah. ñu ngi ci waxtaan ak ñi ñu ci war bi yëpp Mm-hmm. bit sa combat bi est seer na. waaw seer na parce que ñi ay champion lañ. Mm-hmm. ku leen jël taxawal leen fas yéene leen a tëggal benn ngoon. Mm-hmm. yaakaar naa loolu mënul yomb. Elimane dafa ñëw ci lamb ak njàmbur production pour def. bu ñu nee njàmbur production suñu xel mën naa dem ci Gaston Mbengue ndax Gaston production njàmbur la ak keneen ak keneen mais est-ce ñëw pour def benn carrière boo xam ne bu sut bu ñoom ñooñu def la. incha allah yàlla rek moo xam lu muy dogal. Mm-hmm. mais ñaan nañu yàlla daal des ci làmb ji. Mm-hmm. di jox sénégalais yi li ñu bëgg. Mm-hmm. ñu ngi profité sax di nuyu Gaston suñu papa. incha allah rabbi dinaa dem seet. incha mhm. parce que sama papa la. Mhm. te dinaa ko looy wax euh, maanaam sénégalais yi lay seetaan nii muy ñaari ménages yi Père Max Mbargane ak Ibra Mbaye ñi nga xam ne ñoom ñoo encadré ñaari mbir waaw di leen jaajëfal rek. Mhm. ndax xawoon na jafe tuuti bi may waxtaan ak ñoom ñaar. Mhm. ku ci mel ne per Ibra ak ku ci mel ne père Max. Mhm. xawoon na jafe tuuti bi may waxtaan ak ñoom. mais yàlla dogal. yàlla def ci jàmm ba lépp taxaw. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax. di ñaanal ñaari mbër yi aussi tamit ku nekk wér. ak euh, jàmm. ba nga mën a taxaw. bëri combat bi. ci fulla ak fayda. ku am ndam ñoo xam ne loolu la yàlla. loolu la yàlla dogal. kontaan ci yow Elimane. waaye na yàlla def jàmm. amiin amiin amiin. akasa jaajëf père. doo ci sànni kàddu non père da nga cee war a sànni kàddu non père père ah père yow itam man ta ñàkk père yaa ko doon wax lu mën a ñàkk kaay père kaay père daa mel ni père Max napp na la de. dafa daaw ñu waxtaan dafa ma ne dafa ndànk dafa dala léegi déglu buy ma mbërëm dafa dalal léegi waaw déglu ma mbërëm dafa dalal léegi sama sama sama mbër moom dama koy dalal jox ko ma jox ko yëf yi waaw baax na nangu wula lim boo waxee damay waxaat rek waa li am solo daal mooy euh, mooy nga taxawal combat même amaa nga koy taxawal ndax ak technologie bi xew mhm. promoteur bi day am ay xarit ami mbokk buñ ko déggee ci dara danañ ko laaj ndax li ngay taxawal baax na wala baaxul mhm. werante amul ci ne Quench weer yi ñu jàll yëpp yeneen adversaire lañ doon wax. mais wulli day ndaanaan xam nga nag moom. waaw wulli. wulli moo ma ne waa père. pourquoi pas ñu jël Lac Rose. waaw ma ne ko mais wax nga dëgg. wulli gis kat combat boobu combat dàq ko. ndax Lac Rose. Ah, ah. yàgg naa bëree événement yu mag. wallaay dëgg la am nay fans ba pare mbëru amateur la. Mhm. te bu jógee ñëpp jóg. Mhm. kon Quench boo ko booleeg la di nga am combat bu neex ndox bi ñu ko xalaatee xel yëpp daje ci li naan montre yu baax yëpp bokk heure muy combat boo xam ne xam naa ne lu muy gën a jege hmm. tension bi di gën a métti hmm. parce que Lac Rose daf ne tekk mais tekk wax la de hmm. waaw parce que ñun ay kon yow tekk wax la waaye waaye waaye waaye lu mu nëbb xam nañ ko loolu Ibrahima Mbaye laay bëgg yow mii de lu mu nëbb yëpp xam nañ ko tekk suuxlu la ah. waaye dàqu ma laa jàng jox ko RPR Max mi xam na leen de. waaw man damay sant ci gërëm rek <laughs> euh, du ñaan yàlla bi ñu egg ca jàmm yàlla defal ñu kaw suñu jot te gërëm na promoteur bi nga xam ne xale bu ndaw la jël alalam dugalaat ko ci ay morom kon loolu war na réew mi ndaw mi yee ko moom Max dafa am fu mu dugg léegi fan la duggati tegoo li mu wax léegi xanaa mu ne tekk wax la waaw ñun dañuy boole tekk ak jëf may ma ma ñëw rek may ma ma ñëw rek dañuy boole tekk ak jëf ñun bu ñun bu bu nee tekk. waaw mu ne tekk wax la. da ngay boole wax ak jëf. dégg fu ma ko tontoo. waaw terrain bi tekk dong yëngalu fi kenn jëfu fi yëngal nit. mais dama ne ko. man lu mu lëndëm lëndëm damay xuus jaar. wax li moom moo la ko gën a xam. sant waa di wax combat bi ku mel ni Pape du Boy. waaw Saliou Fall. Mhm. xam nga MG. soxna Xeeta Seck. xam nga gars yëpp daal ñëpp ñëpp. combat bi daal seen combat la waa NGB combat bi seen combat la. Mhm. yàlla na yàlla def jàmm Sénégal jaajëf. Koulibaly man maa ngi oo fukki pencee ñaari rek. Mhm. di woo Bargny. Mhm. sama dëkk guddi guddi bari Bargny. di woo sama mbokku lébu yëpp. lébu yi di woo képp kuy suma fan sa ah foo mën a ne si réew mi. parce que man Sénégal ñëpp a ma bëgg adduna ñëpp ma bëgg. moom seen kër sa am naa fa ay fans loolu la ma yàlla defal. biir këram. comprendre nga loolu la ma yàlla defal. comprendre nga kon maa ngi sant ñëpp di woo baax di leen wax ne ne combat bi bëgguma dama bëgg ba ba ñu bëree ba sa suba ga hmm. yàlla may ma ndam promoteur bi woo ma yëkkati ay millions may ma ko ma damaa kontaan. Hmm. parce que li nga indi si stade bi. Hmm. parce que stade bi day weer mbër nag. attention bii. fii du koñam de. fii du fële dañuy dox mais fii dañuy dagg ticket yi ñëw. comprendre fii day weer mbër. lu leer laa la laa koy wax. kon ba bés ba. am na solo joxante leen loxo. léemee mais moom danaan wax da nga may nuyu force wala. waaw léegi yow doo ko forcer tey sax forcer ko rek. forcer ko. xool leen caméra yi forcer ko ko. bu rafet. mën a nekk si àddina bi duñu saa dugg. ah xamoo ci dara ba ñeenti weer ci ginnaaw wala juróom. Hmm. du ko ma lamsaar duggaat. Hmm. lamsaar xamoo nu mel. waaw naan dafay fay la foo jaar dugg. Ah. te damay duggaat ah. mi ngi noonu. coowaam na xam nga li limoon naa Ousmane Toucouleur mu ne jarul lim. waaw. ma lim Balla Diouf. waaw. lim Papa Sow. ñu indi jaraaf. waaw. Euh, daal di indi. Ouza 1 Ouza 2. indi ah. Tafa lim baa ngi bëgg a sakkat bu doon mbàkku dama naan ndox ma limal leen. waaw limal bul lim baaxul. bul lim li ma la daan daa bëri. Birisine jaaraat na fi de. ah jaaru fi ah, li ma fi jaar daa bëri de ah, mais dama la. lamsaar dama ne la. ndand fay fay la foo jaar dugg. waaw Pape na fa yoon. la ndand fay fay la foo jaar dugg. ndand goo xam ne bu ngeen limee mu am juróom-ñett nga am ñaar ne ndand fay fay. gi ndand fay fay neex na de. lii gi na lool. ri ri la yaa ngi doon ubbi rido yaa ngi door a naaw foo jaar dugg moom xam ne li ma ko wax bu baax du nee na tekk wax la damay tekk damay jëf man maa la wax dama koy tojal tekk ji waaw xam nga li ma bëgg a wax non c'est juste boo ne tekk day wane ne fi ma toll ci làmb li ma def ak parcours ak fi ma toll wax waratuma liggéey ñëw wane sama bopp waaw waa déglu non ah. damay dama lay wax tekk Lac Rose yow déggoo dese ngaa dégg te lool nag ñun xam nañ ko ah. ba lu mu ko jaral benn dina ko jaral fukk waaw waaw ngeen jël ko waaw waaw maa ñëwaat maa ñëwaat man kenn du ma jam naa i bukkib timis la boo ma dàqee sa gi loolu kay maa la ko waaw léegi neex na léegi jeexal ko wulli ah <laughs> wulli wulli nañ ko gën a foofu rafet bi pël mi moo coordonné ah, bi de. moo coordonnatrice moom moo ne Elimane. waaw ngeen baal ma fils de Balla ak Kouensi mooy combat. waaw boobu ñu bari bëggoon nañu. boo bëree fii kay moo la choisir boo bëggee bu da ngay dugg si ci làmb ji. Mhm. da ngay teg làmb ju mag. te Kouensi ku ko teg. Mhm, am làmb làmb la tëyit fils de Balla champion la. Mhm. Elimane woo ma wax ma ko. ne ma bu guddee ñëw sama kër ñu ñëw këram waxtaan ñii ñu ne noo fii de bala moom bees sañoon duñu bu rek moom ma ne ah Elimane attention de lakk yoo sañ fii waxal raison yi tax ndax te àdduna lay seetaan li tax duñ moom dañ ko doxoon ba war a jëlee avance ñu laal ko ñoom waaw ñu ne ñoom dañ ko doxoon a jëlee a jëlee leen fii de bala xeeb nanguwul waaw ñu ñëwaat waaw eh, ku leen si ne man si ma amoon lu ma gënal. Mm. comme fii de bala ji woon nañu ba bëgg jël avance. ba nu dënd jël avance ñu woonu ne lam ji amatul. waaw dootuma break moom. looloo indi la grosse. man maa ne comme loolu la. waaw moom mu ne ah xam naa pala ku miiree ci kuwen si ba mu miiree ci <laughs> mu ne maa daal di ma ko tegal. waaw ma ne ko jox la grosse. waaw waaw muy coow. parce que petit bénéfice mais dama gis ne la grosse mi. waaw champion. nekkoon fii war naa fekk ñu naan Lac Rose bala ngay mais mu amoon benn benn jafe-jafe rek la amoon muy fii bi waaw tenoom bi la problème. Mm. mais gis naa daaw boo maa ngi koy gis. Mm. ma gis ne mu ngi na waat mu ngi ci état. Mm. te ma gis ko ne Sénégal yi bëgg nañu ko. mu ngi ci écrit bu mag. te am na fit mën a bëre. mbër la jeexal soxla bu ndaw la. ma ne ko Quench ak Lac Rose combat bu rëy la. ñu woo Lac mm-hmm. mu ne ma sax. xaaral ma woo Père Ibra ñu woo Père Ibra ñu discuter fa xam nga woo ne ma booy boobu laay jël sax parce que dafa am lu ma war a moom moo ma ko de nee na dafa am lu ma war a wane ci kii moom laa koy wane kon tubaab bi dina rëy dina rëy kay man tiit naa di tiit nga di <laughs> maa la gën a tiit kon gars yi ah, kon ñaari mbër yi kaay leen joxante loxo defe naa ne affaire bi rafet na waaw ah xamoo ci dara ba ñeenti weer ci ginnaaw wala juróom hmm. du ko ma lamsaar duggaat hmm. lamsaar xamoo nu mel naan dafay fay la foo jaar dugg te damay duggaat mi ngi noonu. xam nga li limoon naa Ousmane Toucouleur mu ne jarul lim. waaw. ma lim lim Papa Sow. ñu indi jaraaf. waaw. Euh, indi. Ouza 1 indi Tafa ah. Gueye 2 lim baa ngi bëgg a sakkat bu doon mbàkku dama naan ndox ma limal leen. waaw limal bul lim baaxul. bul lim li ma la daan daa bëri. bi di sin jaaraat na fi de. ah jaaru fi ah, li ma fi jaar daa bëri de ah, mais dama ne la. lamsaar dama la. ndaan dafay fay la foo jaar dugg. waaw na fa yoon. déggoo fay fay goo xam ne bu ngeen limee mu am juróom-ñett nga am ñaar ne ndaan dafay fay. gi ndaan dafay fay neex na de. lii gi ndaan dafay neex na lool. rido yaa ngi door ubbi rido yaa ngi door a naaw foo jaar dugg moom xam ne li ma ko wax bu baax du nee na tekk wax la damay tekk damay jëf man maa la wax lii dama koy tojal tekk ji waaw xam nga li ma bëgg a wax noo c'est juste boo ne tekk day wane ne fi ma tollu ci làmb li ma def ak parcours ak fi ma toll wax waratuma liggéey ñëw wane sama bopp waaw waaw déglu non damay ah. dama lay wax tekk Lac Rose yow déggoo defe ngaa dégg te loolu nag ñun xam nañ ko ah. ba lu mu ko jaral benn dina ko jaral fukk waaw waaw ngeen jël ko waaw waaw maa ñëwaat maa ñëwaat man kenn du ma jam naa ni bukki ah, timis laa boo ma sa sa